voilà ba balaa ñoo xuus ci li nga xam ne mooy waxtaan bi rek dañ koy daal di nuyu dalal ko jàmm ci bi Equivox TV tonton ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di kontaan ci disponibilité bi. onze bi kalimaati laay taamaati min sharri ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak Seydi ñu ngi nuyu internetu Equivox yëpp di la nuyu yow Bintu Rasoul di nuyu caméraman bi di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi Equivox di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm tonton euh, balaa ñoo euh, euh, ñëw ci li nga xamante ni rek moom mooy waxtaan bi tey ñu fekk ci la fii nga xamante ni moom mooy CNG nga bokk ci kuréelu CNG keroog ñu gis action bu rafet bi nga xamante ni CNG def na ko ci ñaari mbër yi diggante Ama balde ak ki nga xamante ni rek moom mooy Modou maanaam li ñu leen daggoon ci xaalis yëpp ñu delloo leen ko ndax fair play waaw xam nga Bintu équipe bi bu CNG bi dañ leen di glorifier ndax seen liggéey bi ñu ñëwee ba léegi seen force mooy force d'écoute dañuy nangoo déglu nit ñi di waxtaan ak ñoom ñuy échanger loolu moo tax ñu yegsi fii ñu yegsi nii am na ay problème yoo xam ne amoon nañ ko parce que li ñu daan dagg mbër yi bari woon na mais ñu xalaat ba xam ni li koy waral lu bari mooy bouteilles yu bari yi nga xam dañ koy taaj ci digg géew bi te militaire bi ñu ko doon daggee dafa metti biñ ci waxtaanee ñoom ñu accepté ñu ba nga xam ni. léegi mbër buy ñëw ci dugg géew bi benn butéel rek ngay yóbbu teg ñëpp gis nañu tegi temps bi nu muy gaawee ak lamb yi nu muy teel a tase cette fois si ñu am innovation boo xam ne def nañ ko mu neex waa lamb yëpp parce que loolu mi ngi commencé ci acteurs yi dañuy profité ci euh, ci occasion bi pour gërëm aussi ARELS bi nga xam ni moom mooy association des responsables d'école et d'écurie parce que tàggat nañu xale yi ba ñu xam actuellement lan moo leen war ci seen sport tey boo gisee tey Ama Baldé ak Modou bi ñu bëree ba pare ak tension bi nu mu fu mu toll woon yëpp ñoom seen bopp acteurs yi ñu apaiser ko ba benn problème amul kenn déggul ku gaañu kenn déggul xeex ba combat bi am kon jaadu na loolu nga xam ni seen CNG def na ko di honoré leen ñu taaj leen euh, sargal leen yëkkati xaalis jox leen jox leen ay trophée loolu vraiment nit bu fekkee ne bu sanction jotee nga sanctionné ko kon bu primé jotee war nga koo primé moo tax ñuy lu bu baax acte bi nga xam ni moom la CNG def ak ñaari mbër yi aussi. acte boo xamante ni ñëpp rafetlu nañ ko waa CNG defal ko li nga xamante ni ñoom ñooy ñaari mbër yi waaye dinañ ñëw nag tuuti ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, combat bi nga xamante ni moom moo doxoon tam diggante Eumeu seen ak tafaatin waaye balaa ñu koy wax ci combat bi ak naka nga gisee polémique bi nga xamante ni moom moo am biir Pikine jamono ji wax ci bari na en tant que magu pikin loolu la nga ci wax. waa xam nga wax bi sax balaa doon neex ñu dégg ñu ne acteurs yi ñoo ko def su fekkoon dañ ni Boy Niang moo def telle chose wala ñu ni Eumeu Sène moo def telle chose wala ñu ne Ama Baldé moo ko def wala sax ñi sës ci ñoom au moins kon nañ xam ne am na lu xew kon cër la pour magu Pikine yëpp jóg defar leen comme ni ñu ko yàggee defee mais actuellement ñii wax ñëpp doo xam sax ñan lañu doo leen doo xam seen statut par rapport ak écuries yi nga xam ne ñoo ko seq doo xam kan mooy wax kon foofu vraiment ñun duñ ci mën a wax dara mais tey bu ñu déggoon ni Eumeu Sène dafa am problème ak Ama Baldé wala Ama Baldé dafa am problème ak ak euh, Boy kon ñun ñëpp dañuy jóg dam defaree leen polémique bii am mun naa wax ni lenn kese la loo xam ne sax c'est pas tellement significatif mooy roi des arènes moo waral coow li ndaxte bu dee bëri rek ama neex bëri na ak Boy Niang daan ko Ama Baldé dem bëreek moom daan ko euh, euh, guy gi bëri na ak Ama Baldé daan ko Boy dem bëreek moom daan ko Lac de na ak Boy Niang gañe ko dem bëreek ama ama seen kon polémique bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp lu turu roi des arènes moo ko jur mais du du bëre rek su doon bëri rek problème warul mun am. roi des arènes bi la xëccoo kon moo ko war a indi Pikine. roi c'est pas tellement significatif ndaxte photo yu Modou bi mi ngi fee boo duggee léegi CNG di nga ko gis boobu ba léegi réclamé wu su fekkoon ni amoon na poigne kon nag ni joxoon nañ ko ko bu yàgg. mais tey jii mbër yi fii toog di coow yëpp ku mu neex nga dem jënd sa benn fauteuil sa benn kaan ak sa sa couronne non parce que dafa nekkul dara nekkul dara bu fekkoon ni dafa am fu mu jaare pour nga nekk roi des arènes waaye nag taxul ma négliger roi des arènes parce que ku daan roi roi nga loolu moo fi mës a nekk mais tey war nañ ko organiser ba soo nekkee roi des arènes rek da ngay ñëw def tout pour fees sa place maanaam ñu ne chaque année début saison ak fin de saison am na lu ñu jox roi des arènes chaque année roi des arènes day génn ñëw ci làmb ji ñu xam ne roi des arènes génn na su génnee amateur yëpp ñëw fekk si ko parce que roi des arènes day génn loolu munoon na tag nekk loo xam ne war na tax ñuy xëccoo wala ñuy def dara mais loo xam ne benn kaan la benn fauteuil ak benn benn benn mbaxane amul dara lu koy topp parti wala euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay supporteru Ama euh, ñoom jàpp nañ ni euh, maanaam booy Niang moom moo bëgg indi roi des arènes bi Pikine looloo tax nag combat bii nii nga xamante ni bëri na ko ak sax Modou Lô dafa abdul avance ci suuf loolu la ngeen ci mën a wax en tant que son mënul xëcc damay def rek dama lay fàttali benn anecdote bi Boy Niang daanee Balla Gaye ñëpp doon wax digganteem ak Modou ñun bi ñu posé question yi dañ leen wax ni du ñu wax waxu Modou Lo tant que promoteur bi définirul digganteem ak Ama Baldé non si suuf amu ci dama lay wax rek lu leer boobu kenn jëlul dara moom mu am blessure Ama Baldé Modou dugal guérison ñuy wax combat Modou Lo Boy Niang toujours ñu ne ñun duñ ci wax tant que promoteur bi définirul digganteem ak Ama Baldé Ama Baldé ak stafam ñoom ñoo génn par l'ordre de Ama Baldé ni na booy Niang dem bëri ak Modou Lo moom mu dem bëri ji ak Gris loolu ku nekk ci dëkk bi fi lan la loolu fekk léegi booy Niang jox nañ ko avance loolu yàqul diggante Ama Baldé ak Boy Niang parce que xamante nañu te du ñu toog une semaine te du ñu déggante. gis ñu waaw mais c'est pas parce que gisuñu yow tey jii mën nga am sa sœur muy ngénte te ñëwuloo est-ce que ça veut dire que du sa sœur. mais yaakaaroon tamit mënoon na ko ñëw euh, euh, gunge ci combat bi bii. mën na nekk mais kenn ku si nekk la tax yow defuloo ko bu fekkoon tey jii kenn dafa wax ci ñoom ne ah man kii defaluma lii mais ñoom. depuis bu ñu bu ñu commencé seen palmarès ba léegi seeni relation man sax xajuma ci Jules Balde xaju ci Abdou Bakhoum xaju ci keneen xaju ci ndax dañuy déggante téléphone di seq lépp mais bu fekkee di ñoom dañoo mel noonu ba pare ñun ñuy fexe lu leen jaxase mais loolu lan lay tudd yow boo demee bi di jubalee da ngay jubalee ñoo xam dañoo xuloo mais ñu xuloowul noo leen di jubale am na sax ñoo xam ne dégg naa leen ci internet bi ñu naan bés bu Boy Niang nekkee roi des arènes day dem bëri jëkk Ama Baldé lu ama waa léegi bu ko dégg nga ko dégg naa ko. diggante bi sincère maanaam lépp sincère ndax gis nañ combat Ama Baldé bi gisuñu si kenn gisuñu kenn koo xamante ni magu Pikine la wala ñu féetee ci Boy Niang ku ñëw jàppale Ama. bintu dama lay laaj sincérité bi ci nit ñi la war a nekk wala ci ñaari acteurs yi waa léegi ñaari acteurs yi bu fekkee ñoom amuñu benn problème seen diggante lan moo tax keneen di jóge ci àll ba di di di wut ay polémique gis nga ñun ñoom lu ñu mën a def pour yàq ñu ngi koy def mais ñun tamit lu ñu mën a def pour dajale leen ñu ngi koy def Ama bale mooy nit ki nga xam ni xol bi mu yor xolu jamaa la yor bërki moo Njaay la ko wane ndëgam moo mun a def li mu def ak Modou Lo sàkkantuma ak Boy Niang mi nga xam ne ñoom ñaar ñoom màggandoo defandoo lépp doon fanaan même ci benn néeg séq loo xam ne man sax xawma ko ndëgam yow kane ca àll ba nga mën a àndal sàkkantuma ki nga xam ne yéen a bokk lépp gis nga il faut ñun ñëpp ñu delloo si waat suñu xel. en 2018 doon nañ ko jéem a def Ama Balde moo waroon bëre ak Papa Sow Boy Niang bëre ak Sa Thiès ama ama bor a bëre ak Bombardier roi des ñu dem ba ñaar ñi daan ñu commencé indi intox comme nii rek indi ay polémique ñun ñu wax Boy Niang jëlal drapeau bi yóbbul ko ama mu jël drapeau bi ñu ànd ñoom ñaar yóbbul ko ama seen date la soo laajoon tey Malick Thiandoum dana la wax devant Abdou Karim Sall ministre jour bi euh, cheikh bu sëñ Babacar wooyee rek ma xool ama seen laa xam ne kii day gagné combat am parce que booy doppe nañ ko yaa ngi dégg te immanquablement dafa war a gagné te boobu temps ñii di def nii ñoo doon def loolu aussi. waaw est tey seen ñàkk présence ci combat bi Ama Baldé ñàkk contre euh, Modou du moo waral tamit coow li tonton. waa mais kenn ku si ne da nga am combat. gis nañ Jules Baldé ni nga xamante ni tam noonu la waxee nee na gisul kenn gisul mag bi nii kenn est-ce que loolu tamit tam cër la. ma ne Jules Baldé la mu wax moom moom la concerné nee na gisul kenn. mais est-ce que tey jii ñu muy wax ndax gis na leen est-ce que woo nañ leen ci ci bés boobu. ñoom du ñu woote maanaam bu combat amee bu combat amee ñoom du ñu woote ñëppay ñëw parce que 200 pour cent Pikine la wax mais bii dañoo gis ku ci nekk dangaa ngaa toog ci sa rukk mu mel ni ku ci nekk dafa am loo bëgg. non xam nga loolu yëpp day indi ay jaxase rek. ndax wóor na ma ni am na ay face à face su Eumeu wala keneen koo xam ne am na ko manqué te nit ñi gisewuñ ko neen yooyu yëpp moom bu ñu ko posé question loolu la rek mën la mën a tontu gisuma kenn il a raison gisul kenn mais beneen yoon danañu organiser ba gis nit ñi. Boy Niang li mu jël avance su Modou Lo moo tax. non non dama ne loolu xam nga leeral naa la ko sànq Ama Balde. bëri na ak adversaire booy ñaa booy ñaa bëri ak adversaire Ama Baldé ñoom dañoo bokk ay adversaire kon loolu munul déranger wul sax booy euh, Ama Baldé c'est-à-dire que man dama bëgg suñuy waxtaan dañuy wax waxtaan concrètement ñu waxtaan ci loo xam ne lu positif la amaa Baldé wax naa la ni la bëri na ak ay adversaire booy Boy Niang Boy Niang bëri na ak ay adversaire te pourtant amul woon polémique lu tax le mot roi des arènes moom mooy bëgg a toj bopp nit ñi te des arènes boobu dama ne amul bariwul solo li am solo mooy gagné sa combat kenn ku ne combat bu ñu la jox rek nga gagné ko parce que roi des arènes bi c'est pas quelque chose de significatif su fekkoon ne roi des arènes dañuy wax ni début saison ak fin de saison bu nekk dañ koy jox nangam ci xaalis mu ñëw présenté wu yaa nga dégg nit ñëpp ñëw loolu sax na nekk dara mais loo xam ne fauteuil la ak kaan ak couronne nga xam ni yow mbër yi ñu fii coow yëpp kenn ku ne mën nga koo jënd ko sa biir kër koo ci dem boo demoon kër Bombardier ma manga fa nga dem kër euh, Balla Gaye ma nga fa dem kër Eumeu Sène ma fa kër Modou Lo fa mais lan la lan lañ koy accompagner roi des arènes est-ce que kon jar na Pikine kenn ku ne di wax roi des arènes roi des arènes kenn ku ne Ama mun na dem bëri ak Modou Lo gañe ko Boy Niang dem bëri ji ak Modou Lo gañe ko léegi nag leneen lu ci tegu rek surplus la kon dañu nekkaat ci jàmm ni ñu nekkee woon parce que Ama Bal euh, Eumeu Sène bëri na ak Lac de Guiers Boy bëri na ak Lac est-ce que am na polémique kon li ma la wax ni la turu roi des arènes mooy mooy bëgg a jaxase bopp nit ñi te alors que roi des arènes tuuti lu ma ko pour ki ko gañe mais dama koy wax pour nit ñëpp xam ni dañ ko war a defaraat defar bu tax soo nekkee roi des arènes ñëpp xam ni yaay roi des arènes chaque saison début saison ak fin de saison ñu ñëw honorer la yaa ngi dégg mu am yoo xam ne dañ koy teg pour ñu xam ne sax roi de arènes bii dara la mais loo xam ne yow benn fauteuil la benn kaan ak benn mbaxan kese bu Modou Lo ngi fee ci biir jotagu ci su nekkoon loo xam ni lu significatif la kon naga ni mi ngi réclamer yëfam mais xam na ni day nekk fa mu maye ko wala mu teg ko fee da koy sax gêner combat ak Modou Lo. roi sunu combat ak Modou yaa ngi doo ko wax question bi nga fi ñëwee ba tey combat la boo xam ni Modou kenn du dem di bëri jeeg moom te doo ko préparé parce que c'est un grand champion mu def fi loo xam ne nag kenn du ko dindi kon boo nekkee salange war a dem di bëri jeeg moom da nga war a def plus li muy def. combat boo xam ni li ma ci xalaat man mooy les produits de la lutte danañ kontaan jour boobu ci spectacle bi nga xam ne moom la ñu war a livrer bés boobu. non ak Modou parce que xam nga ñaar ñooy bëre te Modou dafa am lu ay bagages techniques yu ne ci moom kon kii nekk challenge war a bëre moom war na am moom tamit lu ëpp li mu yor xam naa ni jour boobu. amateurs yi supporters yi ñëpp danañu mànd ci ci làmb ci spectacle bi ñuy war a wone ñaa nan la war a mën a bëree ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Modou Lo ndax ay jege ñaale Modou ñu ngi wax naan Modou Lo moo mën waa Pikine te dina delluwaat buum ca mboy mboy ba tey ñëwagul bintu ah? luñ ci wax rek ñun dañuy d'accord làmb nag li mu laaj préparation te soo sooy préparé ku mel ni Modou il faut nga def ci sa fulla def ci sa fayda def ci sa lépp sa diggante sa relation ak nit ñi ak lépp li nga xam ni logistique la ci ci ci préparation combat ndax Modou Lo c'est pas n'importe qui hmm? koo xam ni champion fi nekk yëpp même boo ko ëppee tamit barki dem moo njaay compte ba mu war a nga gis la mu fa liggéey ak Lac de Guiers la même chose am ma seen noonu kon kuy bëri jéeg moom war nga am ay bagage technique yu la permettre nga mën a ñëw def spectacle ba pare gagner sa combat. booy ñaa am nga am na ay bagages yu mën a daan Modou Lo. mais baga ba booy ñaa amul ku mën a daan amul ku mu mënta daan amul ku mu mënta daan su fekkoon dafa nekk mbër boo xam ni dañ koy wax dama la na ji kon sax dañ am ay doute mais moom entraînement comme julli la ko def. boo waxtu julli jotee mu julli bu entraînement jotee mu dem entraîné nekk nag xale boo xam ne dafa nekk ci biir ay waajuram nekk aussi ci biir ñi nga xam ni ñoo ko ñoo ko yor déggal leen li ñuy ñaan rek yàlla may ñu tal ak fekke jour boobu ñu ñëw en forme yàlla ànd ak ñun aussi pour ñu gagner combat bi mais di profité ci occasion bi aussi di gërëm Makan Mbeng parce que premier janvier daaw moo tëggoon suñu combat ak Balla Gaye premier janvier 2024 moo nar a tëgg suñu combat ak Modou Lo ñu ñaan yàlla nag mu réussir journée et puis sponsor yi combat bu toll noonu yaakaar naa ni kenn warul sax traîner ñëpp war gaaw ñëw ndax loolu président de bi wax na ni danaa jël tous les moyens pour que yéen promoteurs yi ak coono yi ngeen am ngeen di promouvoir les jeunes sénégalais les jeunes lutteurs surtout il faut ñu may leen ay moyens yu leen permettre pour ngeen liggéey mais nag sponsor yi fi ne ñoom orange jaay nañ seen produit d'accord ba mu jar mais nañ dugalaat seen loxo parce que vingt quatre heures rek la famille de la lutte ñu téye seen loxo ci ci ci ci ci seen i téléphone rek mu am perte yu bari kon nag ñun ñaanuñu yàlla. suñu réew dara di fa am ay pertement mais nañ ñëw assister le monde de la lutte parce que dañ ko soxla xale yi am nañu volonté ñu ngi ut seeni moyen kon ñi fi nekk aussi di liggéey ak ñoom dañu war a ñëw dugal seen loxo en tout cas ñu ngi ñaanal Makan daal journée boobu nekk journée boo xam ni balaa quinze heures 30 fekk stade bi fees dell mu am réussite léppi mbër yi aussi am wér am wér ñëw war a livrer spectacle na man ànduma ci ñi nga xam ne dañuy bëgg ay deret yu bari di tuuru ñaanoon naa ko ci Balla Gaye ak euh, Boy Niang yàlla dimbale ma ba loolu am na ci bëre nañu xeex nañu te benn deret tuuru amaat na ci euh, Modou Lo ak Ama Baldé su amaatee par exemple ci Balla euh, ci Boy Niang ak ak Modou Lo vraiment dañ ciy sant yàlla bu baax waxuma duñu xeex dañuy xeex parce que xeex ut buntu la hmm? combat yi ma la wax yëpp am na xeex mais gisoo ay deret yu tuuru yoo xamante ne day sax nekk lu horrible loo xam du neex a seetaan te ñii di seetaan si dañu ñëw bëgg seetaan spectacle hmm? ci xeex ak ci bëre yàlla nañu ci yàlla yóbbu yàlla may ñu ndam nag ndam lu sedd guy. le premier janvier combat Boy Niang <laughs> ak ki nga xamante ni moom mooy Modou la. Ama bëri nag Modou ñàkk ko roi des arènes bi yaakaar nga ni Modou Lo dina mu koy euh, comment dirais-je Boy Niang moo koy indi bi Pikine man dinaa waxtaan ak yow mais problème roi des arènes roi des arènes la ndaxte nag titre la tamit. dama lay expliquer man du roi des arènes moo ma intéressé xam nga lu ma intéressé gagner combat roi des arènes dama la tekkil sànq ni la des arènes du dara loo xam ni war na tax ay xëccoo. Boy Niang tey bu daanee euh, Modou Lo moom lañ naan mooy roi des arènes. boo xam ne day yàq hmm? boobu titre duma ci wax ndax nu mu nu mu dul yàqee nee la Boy Niang am na ñu mu bëreel ñu bëri ak Ama Baldé kenn waxul hmm? am ñoo xam ne bëri nañu Boy Niang bëreeg Ama Baldé am ñoo xam ne bëri nañu Boy Niang bëreeg Eumeu Sène kon tey jii lii situation bii rek tax mu am polémique bi tax nga ñëw yow yaa ngi dégg kon wax ji nekkul ci nekk roi des arènes xam ñun lu ñu wax ñun gañe suñu combat leneen lu ñëw addiction la mais su fekkee ne lenn mooy tax nit ñi di di rey seen bopp kenn ku ne di wax te pourtant yàgg nañu gagné ay combat ñoom kii daan ki kay ñëw daan ko kii daan ki kay ñëw daan ko te musul am wax tey su amee wax rek roi des arènes la te acteurs yi waxuñu ko ñoom Ama waxu ko Boy Niang waxu ko Eumeu Sène waxu kenn waxul Eumeu Sène lu doon wax su fekkoon ni benn victoire la rek je préfère Ama jël ko ndax man au moins ñam naa roi des arènes waa léegi kenn ku nekk si ginnaaw di wax leneen est-ce que kooku war nañ ko déglu Bintu il faut que nit ñi delloo siwaat seen xel ndax ñi ñu bëgg a jaxase ñu leen a jaxase te ñoom nu ñu def pour yàq ñun dinañ ko def pour defar toujours ñu ngi ci ci lañ nekk nee naa sànq laa lay expliqué 2018 bokk naa ci la ñi la tàggat ba nga ba nga doon ko kon man ñoom ñoo ma war di seet mais du man maa leen war a seet waaw li may wax rek na acteurs yi nga xam ne ñu ngi fi ni ñu de jàppante woon ba dara ñaawul bu leen kenn puus ci lu koy yàq ñi nga xam ne aussi ñoo am seen idée yooyu idée euh, idée destructeur yooyu nañu jël seen yëf ñu seet feneen fu ñu ko yóbbu furul pikin parce que Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. tonton ñu tëjee ak Eumeu Sène mu nekkoon combat boo xamante ni itam combat bu bu ñëpp doon xaar la komba bu métti woon itam keroog naka nga gisee combat bi ak keroog euh, gis nañ itam euh, Pikine lu bëri ñëwuñu ci combat boobu noonu mu mel ni euh, ñoom am na lu ñu jàpp ci seen xool en fait loolu lan nga ci mën a wax. waaw loolu. man de dama am fierté ci Eumeu Sène ci combat bi mu livré parce que combat boo xam ne dañ doon wax ne waa ji moo moo ko man da koy dóor ba mu tëddal boppam ak da ngay dàngam nangam mu ñëw def combat bu toll noonu géré ko ba yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko mooy joxe victoire mu jox ko victoire ñu ciy gërëm bu baax Tapha Tine ci bravo wuram géré combat ba gagné ko mais nag kontaan ci Eumeu Sène ci tey jii ñëpp ñu ci bari bokk gëmuñu woon ni mun na def loolu tafaatin su fekkoon ne bi tafaatin di am trois appui quatre appui la kon combat bi jeexoon na kon amul dara luñ koy wax man duma ko corriger duma ne ko li nga def baaxul duma ko wax leneen lépp lu mu roon def def na ko. avant ñu sëgg bëri comportement bi nga xam ne def na ko ñu bari ñaaw ñaawlu ko tam. loolu est-ce que euh, moom Eumeu seen en tant que champion li mu def ci làmb wanoon na comporté woo noonu. comme lan. mooy ñëw maanaam bugg ko sotti ndox ma bëgg ko wër ma euh, tafaatin ñu tegante foofu ay dënd ba tey ji tafaatin amaana dóor na sax tafaatin tafaatin bu ko toppoon amaana combat bi mënoon. non dama xam nga loolu man maa ngi koy dégg nit ñi di ko wax non dama ne ma ne maa ngi dégg nit ñi di ko wax mais tey xam nga ci interdit yi bokkul nga yor sa butéel di ko di ko wis ci biir géew bi su fekkee ni nit ki neexu ko moom dafa war a arrière génn dem taxaw ne lépp pour nga bañ ko wër gisoo ko ba taay léegi nit ki dafa war a kii nga ñëw taxaw ah ni ko par force doo fi jaar bu to bu dara xewatee bu leen xool rek lii da ngeen di xool li ko jur hmm? li jur loolu am na man de Tapha Tine xamaluma ko benn indiscipline xëy na peut-être euphorie mën na ko jàpp ci làmb ba tax mu doxale noonu mais Tapha palmarèsam yëpp doo ci gis dara loo xam ne mun nga ko mën ko sikkee mais jour boobu mën nañ leen a comprendre ñoom ñaar ñëpp xam ni lii seen tàngaay yaram moo ko jur mais souvent boo gisee nit di ñëw da ngay teel a génn yow dem taxawu na la moom mu continuer tour li muy tour dem yoonam mais à à deux reprises yoo xam ne day bëgg a dem yow nga freiné ko yaa ngi dégg kon lu fa xew est-ce que duñ la wax yow lu tax nga koy baare avant ñuy wax kee lu tax nga def nga def yooyu réaction loolu daal ñun souhaité wuñ ko sax si làmb muy am mais buñ jël faute di ko teg kenn te man duma ko def duma ko teg Eumeu Sène parce que waruma ko teg su fekkoon dañ ko bàyyi mu dem wis li muy wis kon benn problème du am loolu ñaanuñu nag que yeneen sax mbër di ko def beneen yoon ne bu kee di wis na kee dem dégagé wu dem taxaw fële parce que kenn terew ko mu def ko yow da ngay taxaw sax nit ñëw tibb sa tànk lu tax doo ko weq hmm? te te règlement bi dafa la ne amuloo ci droit même yow mii topp sax soo gisee nit di def yëfam soo ko bëggee baare arbitre dañ lay teeloo ne eh, kii am na ci droit bay ko mu def loolu moo tax des fois dama wax ne même agent de presse yi xool. question yi ñuy posé parce que sa yow sa produit day jar ba pare nga bàyyi sëkkal foofu ndax am na façon wax yoo xam ne ñun suñ ko waxee rek mu yàq suñ digganteeg Tapha Tine wala mu yàq suñ digganteeg Eumeu Sène waaye nag dañuy wax rek en tant que responsable en tant que président des managers ñun rafetlu ñu geste bi ñu def noonu ci biir géew bi waaye nu ñu jël toor bi di ko teg di ko teg Eumeu Sène mi nga xam ne moom da doon tuur kële ñëw di ko baare ngi ñooy la ngi ñëw ci bés bu am solo muy Boy Niang ak Modou Lo première premier janvier tey est-ce que yéen a ngi dox ay jéego comme ni nga ko waxee sànq yéen a ngi ci sax mais est-ce que ngi euh, fexe supporters yi euh, maanaam gën a mànkoo ndax gis nañ combat bi Eumeu seen mu demee euh, am na sax dégg nañ sax mu féetee ak booy ñaar tur bi laa jàppul mu ngi wax naan ba Eumeu Sène daanoo am na ñu doon jubilé biir Pikine est que tey supporters yi bu ñu tasaaroowee loolu dina baax ci mbër bi. nga man sama sama liggéey ci ci Pikine am na ñoo xam ne ñoom problème mu supporter yeeg bii yeeg ñi leen di dimbale am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko yor man fédérateur la dama la wax ni la dama àndoon ak Pape Diop ba carrière jeex ma ànd ak Mansour Diop Balla Beye numéro un ñoom ba seen carrière jeex ma ànd ak ñoom Paala Diop ak ñoom Baba Diallo ba seen carrière jeex ma ànd ak ñoom Balla Beye 2 ak ñoom Ndiaga Diop ba seen carrière jeex ba fi ñu toog nii ma la nekk naa secrétaire général Pikine mbooloo ñaari mandat Ndiaga Thiam nekk président bi kon man su toogee fii ba heure bi man fédérateur rek laa mën a nekk non loolu lan man loolu engagé wu ma engagé wu ma neexu ma nag mais engagé wu ma am na ñoo xam ne ñoom seen liggéey loolu la man sama liggéey mooy fédéré leen boole leen ñu nekk benn lépp lu lu ñuy wax loo xam ne lu ñaaw la wala yu mel noonu loolu man duma ci bokk man damay bokk ci ñi nga xam ni suñu gisee benn situation bu ñu war a régler ñu jóg def benn délégation dem ci ñoom mais si yooyu situation moo amul bintu ay waxi jàmbur rek te waxu jàmbur doo ko doo jël di naan da ngay dem di ko régler ji boo ñëwee nii diw euh, dama bëggoon yaa ak diw ngeen ki ñun la mais lan lañ jote looy wax hmm? mais benn nit bu jógee fee ci àll bi ak yéen ku leen neex ngeen jox seen micro yow dèjà yaa ngi wax koo xam ne am na lu mu la wax hmm? mais kooku soo moytul nekkul dara fi hmm? mën na rek man supporteru booy ñaan nangam nangam am na ñoo xam ne fii sax seen téléphone lañuy en enregistré ñëw rek fekk la waa père nangam ak nangam ak nangam alors que kooku ban site la nekk noo ko mën a identifier en tout cas non non amuñu problème seeni staff tamit amuñu problème li ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu le premier janvier mbër yi ñëpp wér ñiy seetaan si wér ñëpp nekk si jàmm ñu livrer spectacle bu neex boo xam ne day satisfaire ñëpp yéen aussi bu boobaa ngeen ñëw toog xool la victoire éclatante de Boy Niang voilà. Hmm? <laughs> waaw xam nga mënuñoo wax nag ba mu jeex te gërëmuñu la famille Kandji ndax support lañu ci école de lutte Boy Niang mais plus particulièrement Boy Niang euh, di gërëm aussi staff bi yëpp papaam directeur technique Cheikh Ndiaye entraîneur lune ñoom Maysa di gërëm yaayam bu baax booy Niang dama ko doon wax ni victoire boo mës a am rek victoire yóbbu sa papa ak sa yaay màkk moo ko dàq tey jii nag ñu ngi jëm ci combat bu am solo boo xam ne li ñu ciy ñaan yàlla rek ñun mooy gañe ko mais du ay tiit walla dara suñu ko yàlla defalee nag lépp lu ci topp ñu xam ne moo ci topp mais ñun pour le moment daal gañe sunu combat rek la ñaan yàlla di woo di woo Pikine yëpp nag ci bés boobu que bés la boo xam ni je sais que ñu daan wax Pikine dafay tasaaroo lépp lu ñu bëggoon gis ci Pikine dañ ko gis yàlla nañ ci yàlla yóbbu euh, di gërëm aussi sama sama doom ci combat bi mu ñàkk mu ngi qualifié deux ñu xam ne rek ànd nañu def dix-huit mu nekk palmarès bu riche te buñu yeggee ci ay vingt-deux vingt-trois combats moom ay problème dañuy gëm yàlla rek xam ni euh, combat yi jiitu woon am nañ te euh, il n'est pas trop tard pour bien faire waaw